problème yaa ngay démarré de problème yaa ngay démarré nag terminé yéene kaa ne tourné ci bu tànk ma kii day waaw dossier su bëggaan ngay dani ba daal dinañ koy song maar di taali maar di taali maa ko wax dama ne la njiital gëm sa bii ah. nga xam ne kon nañoo ànd ak Macky Sall googe ñoo ko daal di attaqué la ilaha illallah gis nga song googe waaw une heure une heure quarante laa lay wax nii treize heures quarante ca orefonde gële la moo xam ne da bari woon Ndioum ayra laaw boode laaw Medina Ndiagbé waaw mbooloo ma dañoo sakkan torop sax tribune yéene kaa ne looloo tax nag ba union pour la restauration des valeurs day URV daal di nañuy naqarlu song bi nga xam ne song nañ ko njiital gëm sa bopp googee booy benn ñaar fa seeni nañoo porte plainte tamit alxam daanu nag ci fitna ma ngay daanu ci fitna laa la wax ca songo ay kilifa biir université yaa ngi ni lé raw année nationale vingt-quatre heures yéene kaa ne waaye nit ñi ay laalay ay ni lé ci nervi yi lé ah. bi ci boppam kon dafa war a arrêté na seetlu nañ ni lé waaw nekk jëf joo xam ne nag walaay ñi ngi jiloo xam ni heure góob booba jotee du neex wàllum guerre civile ci boppam la ñuy woo suñu réew mi lay ar day taali ar day taali ah waaw parce que yow seetlul ma président Macky Sall tournée économique gi lée fi mu jaar yëpp waaye yow loolee la ñu seetlu ci moom ay nervi te xam na yenn image ñoo gën a doy waar yow ay milice yoo xam ni kon góor gi la ñu àndal di ay nervi dem bay saboté ka liggéey bi nga xam ne parce que koy liggéey loolee nag tax na ba au commandant de la gendarmerie nationale ak le directeur général de la a jël joo xam ne Macky Sall ak waa a ña ngay recruter ay nervi vox mobile nee na moom a Macky Sall moomee daal dinay dàq capitaine Omar Touré ci cadre gendarmerie ya allahu akbar xam nga lan lañ koy waaw nee nañu capitaine bi dafa xaawi wormawu gendarmerie kon léegi capitaine Omar Touré daal symbole soldat dong waaye moom capitaine Touré biñ ko day dafa ne gis nga dundinu day mooy haut commandant de la gendarmerie bu bees bi lée moo remplacé général Jean Baptiste Tine termine yéene kaa ne gis nga tournée ba ca Matam googe waaw président Macky Sall day ma nga continuer di gis lu xonq rek te du Macky moo du gis lu xonq waaw dama ne la ma nga continuer di gis lu xonq laa la wax fu mu jaar ñi nga xam ne ñoo bokk i organisation day daal dinañ moom Macky ba mu xonq co wan ko carrément ne danoo mer ñëw très bien ça yéene kaa gi ne looloy mandargaal ne gis nga Macky Sall mi lay waaw ba keroog muy génn Matam ak li ko wër laa la wax day continuer di gis lu xonq na saal la l'observateur ne gis nga mbooloo mi nga xam ni kon moo dar Macky Sall day waaw te du nee nañ tournée économique la waaw professeur Moussa Diaw day ne mbumbaay laa gën a feeñ di folklore ba ba woy benn ay doomu aadama yoo xam ni kon dañ leen a gàddu yóbbu leen foofee jënd leen mooy mandargaal ne nekkul ne askan wa ñoo jekki-jekki génn une mobilisation spontanée déedéet te xoolal Macky ak résultat mi day ci élection présidentielle yo Matam Podor ak li ko la Fuuta Tampeeg Fuuta Fatigué waaw lan moo fi xew bi professeur bëri bi de waaw mandargaalul ne mën naa victoire di buñ ca yeggee mais parce ñu bëree bëri defuñu ko ngëm-ngëm dañ leen faa yóbbu direct news Bougane Gueye Dany day ah nee na président Macky Sall bàyyi ba 2021 bi lée mu naan day jox chef de village yi salaire te nekk ba tey te gouvernement bi ne bu demee bay jox salaire jigéenu ambassadeurs yi day mais lan moo tax mu koy bañal chef ak bàjjanu gox xeex di guerre bi nga xam ne moo am ci diggante Farba Ngom ak maître Malick Sall ma nga mel ni tulleeg ma laa la wax waaye demal ma ci diwaanu Pikine gële nijaayu Macky Sall di Abdoulaye Timbo day ah ca mairie bu opposition bi daanaka ñëpp moom leen jàkkaarloo laa ma ca diwaanu Linguère rek la ko war gële ah affaire day tas na tasar ar day taali parce que fukki yëpp ci fukk ak juróom-ñeent yi waaw na coordonnateur départemental ba day Sidel Sow ak Aly Ngouille Ndiaye ah ngir gàttandu Macky Sall waaye ministre Samba Ndiobène ka day daa beru fële ca daara Jolof ne fa lay xaar Macky ñoom la rek bilaay ñoom la rek évidence ne kaane tekki doom ba dànk bi nga xam ne moom la ñuy wax ci waa AFP ca Canada gële AFP dinañ ko de ah sur bakkanu AFP mi ngi ci xottu gerte de ligne rouge dëgg sax exclusive yéene kaa ne Amath Diallo day président mouvement ngee xoox bu bees waaw daal dina indi nag ay proposition yu bees tribune yéene kaa ne Grand Yoff day Mounirou Sarr PVD candidat la de waaye maire bu Ndakaaru Ndiaye Diadio day waa bokk gis-gis waaw daal dina ñuy proposé seen leader Pape Diop mu nekk candidat wu opposition bi ci Dakar source année quartier électeur yi nga xam ne retiré guñ ko day ah contrôle bañ ca def ca boppam yaa bulul de jarul dóor sa doom de critique yéene kaa ne le juge Naari Diop day bañ dama dama jànge ñetti weeru yàlla yoo xam ne da koy tëdd ci bi le ak amande wu juróomi million coow li dox digganteem coowal Madiambal Diagne ak Souleymane wa day jur na werante Madiambal Diagne naxarlu na kon daan wi nga xam ne jàpp na ne wàllum parparloo da caa am ba noppi nag da kon appel Souleymane Teliko ne ma ndey sama der setal nañu ko waa IPF day nee na Madiambal Diagne daa dund nag kumba am ndey kumba amul ndey ci justice bi 24 heures yéene kaa ne njaayum drogue waa Amérique du dee léegi nag fii lañ lal basang libération yéene kaa ne rapport scientifique ci patron comité national olympique bu Mali